Euh, salaamaaleykum internet du Sénégal ndax tey ñu dalal fi Fabrice Fabrice joué trois rôles yoo xam ne euh, remarqué nañ ko ci muy euh, infidèle joué na tamit si secret de famille récemment gis nañ ko tamit ci koor gi ci biddéew ci rôle Yaya ak ñaari rôle yoo xam ne dafa doy waar Bachir ak kii Yaya doy nañ waar mais bàyyi ma bàyyi ko présenté ak fansam yu koy seetaan <laughs> Euh, salaamaaleykum waa àddina salaamaaleykum waa Sénégal. Mm-hmm. maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal ci invitation bi tey. alors ma la waxee kan mooy Fabrice. Mm-hmm. acteur la xam nañ ko mais euh, kan mooy Fabrice réellement. bon Fabrice de base c'est euh, un jeune sénégalo-capverdien. Mm -hmm. qui est à Dakar qui a grandi ici. e qui est euh, qui de profession ci moom laa yëngu maa ngi yëngu ci communication mhm. mais en même temps je suis euh, mannequin modèle et acteur d'accord mannequin bi modèle gisoon nañ la auparavant si clip bu Adiouza nga defoon fi bés bu rëy ñëpp naan Adiouza ku mu jëloon donc sa début si cinéma nan la demee nan nga jékki-jékki buggee ci cinéma bon déjà début bi c'était pas évident comme tous les débuts Euh, je me suis fait une idée boo xamante ne que euh, au début pour moi ce serait facile parce que tàmmoon naa caméra yi du fait que damay défilé ak mhm. dama doon dama doon def ay shooting et tout donc bi ma ciy dugg dama ne woon tàmmoon naa caméra donc day yomb daal mais euh, franchement euh, défilé dox ci podium devant des centaines de personnes mhm. c'est une chose parler devant une caméra retenir un texte euh, faire un jeu d'acteur en est une autre Alors je me suis fait vite euh, à l'idée que c'était deux mondes différents et qu'il fallait que j'ai un temps d'adaptation pour que ma mën a imprégné wu ci milieu cinéma parce que foogoon naa ne lu yomb la ndekete yombul mais après à force de travail d'abnégation de motivation dem naa ba j'ai pu trouver mes repères jusqu'à ce que tey jii nii euh, voilà maa ngi ciy sant bu baax. est-ce que c'est passion la woon xalaatoon nga jour di nga jouer cinéma. Euh, honnêtement non ça ma daf daf ma dab en fait xalaatuma ko woon je m'étais dit que bon déjà temps bi ma doon bi ma nekkee mannequin ak euh, modèle cinéma bi fii Sénégal demeewul fa woon noonu mm-hmm. mais après avec le temps au fur et à mesure on a vu que voilà, un mannequin peut être aussi acteur, etc. etc. Et euh, lorsque j'ai eu des propositions par rapport à ça, je me suis dit pourquoi pas. C'est toujours c'est la même famille, même famille Bill, donc euh, voilà, c'est comme ça. Non, bàyyi bàyyi woo hmm. mannequinat bi non. waaw c'est vrai que c'est vrai que gëj naa défilé mais maa ngi def ay shooting ak yooyu noonu temps yi défilé yi moom avec avec euh, la, la pandémie c'était pas très évident il y avait pas trop d'événements de mode. mais voilà maa ngi def ay shooting et tout et cetera et cetera. d'accord est-ce que doxul moo tax nga rabattre ci bi comme série sénégalaise yi mi ngi gën a bëri. non même pas même pas c'est bon des propositions que j'ai eues et euh, voilà j'ai sauté sur l'occasion puis voilà quoi en fait. alors ku la njëkk a gëm la njëkk woo ne la mën nga mën nga nekk acteur. Euh, YS Dakar. dans la série euh, Secret de famille. Mm -hmm. où fi ma doon incarner rôle euh, waaw ñooñu ñoo ma njëkk jox sama chance bi may doog a tàmbali ci cinéma bi. Mm-hmm. Euh, rôle boobu euh, première fois nga joué euh, série boobu noonu pourtant réussir nga ko kenn xalaatul mm-hmm. di nga di nga di nga bon première di ko interpréter ba mu normal noonu. lan mm-hmm. lan moo nekkoon sa sa inspiration lan moo la doon gën a motiver pour que mën a réussir rôle boobu noonu. rôle boobu déjà c'est contrairement à ce que les gens pensent c'était pas un rôle facile. doon na woon. bu yomb nag yomboon na de. non yomboon na dans le sens que peut-être personnage bi il avait pas trop. Euh, il avait pas trop trop de voilà de d'action négative. mais c'était pas facile pour moi parce que je venais de débuter dans le cinéma. Mhm. looloo tax rôle bi mu xawoon compliqué ci man. mais euh, ouais après euh, comme souvent les gens me l'ont posé comme question dans le sens que est-ce que Sidi ak Fabrice il y avait une grande différence entre les deux personnalités. Il n'y avait pas de grande différence, donc j'ai pu gérer le rôle sans trop de difficultés. Mais quand même, ce pas évident au début. Alors, quand tu as série, de vues. Mhm. chaque, série, chaque épisode donne, donne un million de vues. Nous avons apprécié le Mais après, retour public, puis, ce premier rôle que joué, réussir. Quoi. Mm -hmm. Bonne satisfaction, c'est ah, euh, <laughs> j'étais très content, franchement j'étais très content. J'ai eu des retours de beaucoup de gens qui me suivaient. me disant que di ma wax ne que li ma def nice woon na li ma joué rafetoon na et pourtant man au fond de moi je me disais que peut-être j'étais pas arrivé à ce stade mais ñoom ñi ma doon seetaan ñoom gars daan dañ ma doon gisee dans le sens que j'ai très bien joué moi vous savez en général nit dafay am def def autocritique donc di nga di nga def lu rafet sax lu baax mais yow pour yow defoo lu nice mais nit ñi bu ñu ñëwee wax la ne que li nga def rafet na li nga def nice li nga joué li nga joué cool na après tu finis par te dire ah donc peut-être effectivement j'ai quand même bien joué. mais est-ce que am nga ay critiques yoo jot. négatives. oui j'en ai eu certains qui me disaient que ouais j'étais un peu trop dama xawoon cool de trop dama xawoon gentil ou dama xawoon nooy tu vois bon après c'était le rôle qu'il demandait si li ma xawoon mel noonu c'était quelqu'un de très, euh, très très très calme très doux très gentil. Euh, voilà am na ñu mu neexoon am na ñu mu neexul donc euh, c'était tout à fait normal. Mm-hmm. alors après loolu secret de famille gis na ne ci ci infidèle. Mm. ñëw euh, amoon ku doon interpréter Bachir bi nga ñëw jël rôle bi kooku jóge fa xam nañ tax mu fa sax mais. Mm-hmm. giraawul nga ñëw après jël bi noonu mais balaa ñu ñëw ci loolu trois rôles Sidi Bachir ak Yaya. Yaya moo nekkoon ce que que yomboon que yomboon na ba nga jógee ci bon les gens ne feront pas aimer. Mmh, mmh. bon c'était pas c'était pas compliqué. c'était pas compliqué pour les gens nit ñi foogoon na ni man. Mm-hmm. parce que dañ ma xamee woon rôle bu calme. ku calme kenn ku ku gentil donc bu ñuy déggee ne que waxee bu ñu gisee ne que maa ngi doon interpréter Yaya dans Corobideo euh, et Bachir dans infidel daf leen xawoon na jaaxal pour ñoom xëy na du ma mën a du mën a gérer challenge boobu noonu mais euh, non j'ai pu gérer sa sans sans trop de difficulté. ban ban rôle moo ci gënoon métti. bi ci gën a métti man mooy bu secret de famille. boobu si di boobu moo ci gënoon métti parce que je venais de débuter maa ngi doon toog tàmbali xaw ma woon torop nu mu fa doon nu mu nu mu nu euh, muy demee torop ci ci cinéma bi donc comme je t'avais comme j'ai dit. J'avais des préjugés, je me disais que parler devant une caméra, c'est comme marcher devant un, devant un podium, mais c'était quand même deux choses très, très, très différentes. Alors là, euh, c'est secret de famille, parce que le rôle mhm. que vous jouez, comme vous l'avez dit, calme, jékki-jékki, c'est infidèle. <laughs> <laughs> après nga doon a jël rôle Bachir nga xam ne première saison bi nit ñi gisoon nañu lu mu tudd joué. Ah. ñu ne non kii mënu ko est-ce que jot nga retour baax a baax jot naa ci am pagaille kenn les le public était ngi doon douter par rapport à mes capacités parce que dañ ma xamee ku calme ku xam nañ ne que Bachir dafa dëng dafa dëgg bopp c'est un manipulateur et il se disait. est-ce que Fabrice dina mën a gérer euh, personnage boobu est-ce que dina ko mën a dina mën a endosser personnage boobu noonu et bon après c'est tout à fait normal parce que bi ñu ma ñëkkee xam dañu xamee si rôle bu gentil alors c'est tout à fait normal qu'ils aient ces préjugés mais je pense que maintenant ils se sont fait à l'idée que euh, un rôle c'est juste un rôle c'est une c'est une casquette que tu portes et puis voilà tu tu rentres dans la peau du personnage et puis nga def li nga war a def. mais ba affiche bi génnee retour yi ñu ci am est-ce que xaw la déstabiliser un peu. xawul wala daf la motiver ban ban état d'esprit la la est que xawoo ne non est-ce que naa douter un peu. non j'étais j'étais au contraire j'étais plutôt boosté parce que j'ai eu de, certains retours négatifs par rapport à ça comme je t'ai dit. le en fait le public s'était familiarisé à l'ancien Bachir. tu vois. non ah, l'ancien l'ancien l'ancien oui l'ancien Bachir dañu tàmmoon dañu dañoo dañoo miinoon ancien Bachir bi donc bi ñu gisee bu bees bi automatiquement ils ont pas essayé de comprendre en essayant de se dire on peut lui sa chance donc ils se sont dit non non non on ne veut pas du nouveau on va garder l'ancien alors que. et puis personnage Sidi bi dafa nekkoon seen bopp. voilà personnage Sidi bi dafa nekkoon seen bopp donc ils se disaient déjà de base tu vois que ça n'allait pas marcher. loolu la ñu mais man bi ma doon dégg yooyu noonu c'est ce qui me motivait encore Euh, li ngeen di wax nii si toog leen ngeen seetaan vous verrez que voilà c'est euh, c'est pas c'était pas vraiment le cas quoi que peu importe le rôle qu'on te propose mm-hmm. si tu veux vraiment te mettre dans la peau du personnage et le et le, et le jouer normalement je pense que tu peux le faire quoi. Mm-hmm. Est-ce que c'est facile de jouer Bachir Bachir mu dëng. <laughs> le rôle de Bachir n'est pas difficile en soi franchement il n'est pas difficile la difficulté c'est que c'est le fait de remplacer quelqu'un qui a déjà ses bases qui a déjà mis son empreinte dans la série maanaam ak loo mënti def ak loo mënti def tu viens avec un handicap da ngay tàmbali ak handicap pour un rien nit ñi dañ lay comparer ak ancienne version bi kii ni muy waxee du benn seen ton de voix seen manière yi seen ni muy meree ni muy yuuxuwee ni muy reetaane automatiquement tout le temps pour un rien dañ comparaison day am donc loolu mooy handicap bi Et c'est ce qui fait, en fait, c'est ça, c'était ça la difficulté du, du, du rôle. Parce qu'il faut toujours essayer de donner le meilleur de toi-même. Tu avais deux possibilités. C'est soit faire comme l'ancien acteur, identiquement, copier, soit faire mieux que lui, mais tu ne pouvais pas te permettre de faire moins bien que lui. Donc c'était ça le challenge. Donc, mais est-ce que, est-ce que jouer beaucoup avec stress ou avec pression <laughs> Ah ouais, Est-ce que jouer avec pression Non, jouer beaucoup avec pression, pourquoi Parce que Euh, c'est pas facile si série du remplacer kenn ñi ngi adapté ko. Mhm. ci kaw. Mhm. personnel bi bees bi. Mhm. gis nañ ko ñu bëri bu ñu changé personnel bi dañuy laaj série bi c'est pas saa si. daan noo kii moo doon sama acteur. doon changé ko et tout. loolu est-ce que du pression sa premier par exemple séquence nga war koo joué. est pression. oui c'était une grande pression c'est sûr c'était une grande pression mais euh, j'ai j'ai su la gérer. Et ça ne se, ça ne se voit peut-être pas comme ça, hein, de premier abord. mais dama am dama xaw am tuuti caay-caay ci man donc <laughs> je dis ça je dis je dis ça je dis rien je, <laughs> je, je dis ça je dis rien donc le rôle de Bachir je sais que moi je pouvais le je pouvais le gérer sans trop de difficulté franchement parler ouais. alors nan lañ def Evenprod euh, repéré ba ne la yow yaa am naa sa Bachir ak buñ la ko waxee ban impression am Bon, c'était par rapport à une autre production qu'il m'avait appelé, qui n'est même pas encore sortie même. Et bon, après, de fil en aiguille, il s'est avéré que apparemment il devait remplacer le personnage de Bachir. Mm. et ñu gis ne que man ak Bachir ancien Bachir bi la ñu xaw a ndiroo surtout bu ma takkee verre yi. voilà donc ils ont fait un bon casting ils m'ont proposé le rôle. ils m'ont demandé si je pouvais le gérer j'aurais dit il y a pas de raison que ma bañ ko mën a def. et puis voilà c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble sur le projet Infidèles. mu nekk rôle bu faax la ci série bi boo xam ne boo boo ko réussir woon mën na yàq tuuti dara ci série bi. c'est sûr euh, mais nga réussir ko yéen a ko tuur nga am parce que Bachir Gueye daan jot xëy critique bu koy saaga. naan kaan sa jabar nga. nekkaloon xam nga genre est-ce que jotoo yow tamit même chose même même même avis xam ne euh, c'est négatif. Euh, sur sur cette saison non parce que saison une bi Bachir dafa def ay affaire yu grave ci saison une bi il a déconné dafa déconné bu baax ci saison une bi alors que si saison deux bi dafa doon on va dire il essaie de se racheter par rapport à ce qu'il avait fait maanaam il subissait alors téléspectateurs yi daañu doon gis man daañu doon gis ñi may genre affaire yu ah ma ne Bachir euh, saison 1 bi moo subir. voilà Bachir saison 1 bi moo subir yëpp léegi saison bi je dirais même qu'il y en avait qui étaient même petit peu euh, qui avait de la compassion par rapport à lui parce que moom rëccu na lu mu def tu vois rëccu na lu mu def mi ngi jéem a euh, jëlaat jabaram Sofia mi ngi koy sonal et donc les retours négatifs par rapport à ça non parce que Bachir n'a pas eu vraiment d'action négative dans la saison dans la saison 2. Mm. mais mais mais tamit saison 2 bi gis nañ tamit nga xaw a proche tamit. topp Sofia di ko di ko fiiree. waaw moom man seetaan naa épisode 40 mënuma nettali nag gars liy xew. mais euh, gis nañu ngay fiire sa ba tey amoon na benn jaay jaay. waaw xam nga góor moo mel noonu. góor même bu bëggul sax day bañ keneen keneen keneen jot ci affaire bi donc c' était ça en fait Bachir même s'il en ce moment dafa bëggoon dellu ak euh, Adélaïde il ne supportait pas le fait de voir euh, muy gis Amar di nekk ak Sofia et que ñuy ñuy ñuy donc loolu moo ko doon metti moo tax mu doon def affaire de xam nga rek di fiire di def lii ak lee góor moo mel noonu daal. d'accord alors si série bi mhm. ma euh, génnee na ko pour l'instant mais je am na daal koo xam ne da ngeen niroo. Mhm. nekk sa frère. Mhm. kooku ñëpp dañ ne man ko nga seetaanee dama ne non kii du frère dëggantaan. dëggantaan sama frère la sama rakk la. Ouais, dans la... euh, m'a, en fait, on m'a proposé, si, euh, si j'avais, euh, si mon petit frère que de base, Dafa naroon nekk sama mag mais finalement après ils se sont rendus compte que voilà euh, mënul nekk sama mag sama rakk la parce que fait il a de barbe donc bague sikkin bi moo tax mm. parfois bu ñuy dox man ak moom ci mbedd bi dañuy foog moom mooy sama mag mm. fekk sama rakk léegi euh, nag après noonu nañ ma proposé on m'a demandé de lui demander s'il pouvait venir intégrer la série pour qu'il joue le rôle de mon petit frère et euh, oui il est venu et voilà ça s'est quand même très bien passé. alors évidemment première saison bi euh, décrié nañ ko lu bëri wax nañu série bi dafa am vulgarité. nit ñi mhm. jigéen ñi dañuy et tout et yow est-ce que loolu def na benn impact ci ci bañ la woowee na la. yow mu ngi bokk si série bi amul benn affaire pensée boo si topp wala nga xaw a réticent un peu. bon côté boobu franchement non j'y ai pas trop pensé hein. franchement xam nga góor jigéen lu muy lu muy sóoraale xëy na góor moom du ko ci fekk. donc euh, sur ce plan moi j'avais pas de problème hein, par rapport à à certains certains dialogues de certaines de certains personnages dans la série à certaines vulgarités et tout ça, c'est rien. Son, on, voilà, c'est une série d'écolades, donc voilà, on le fait. Mais franchement, moi, je trouve que c'est rien de vraiment négatif, quoi. C'est pas méchant, c'est pas méchant. Voilà. Et <laughs> écoute, euh, je sais pas. Boudé Managman, je sais pas. Mais Nini, il faut. on dit. waaw dinaa toog sama naan damay si naan souvent. pour yow lan je dirais que le nouveau Bachir était plus euh, chaud que l'ancien Bachir. Saison 2 bi Bachir a plus eu des réactions de colère tu vois parce que da doon fiire moment rakam par rapport à Adélaïde donc euh, Mais j'ai eu des retours assez, assez, assez positifs. J'ai eu beaucoup de retours positifs par rapport à mon, à mon jeu. Des gens même qui ne croyaient pas que j'allais que Dina manager les rôles Binonu et qui ont, qui, qui, ont été agréablement surpris en disant que ouais, on, on ne s'attendait pas à ce que tu à ce que tu gères le rôle comme ça quoi. Ban séquence moo la gën a moo la gën a marqué rek kii ak kii boo xam ne joué nga ko après nga dem sa kër kontaan loolu la jàpp. sama séquence ak sama rakk. <laughs> voilà les séquences là c'est en fait lu ma dund la ba pare ak moom xam sama rakk la ñoo dëkk et tout donc xuloo bi xeexoo bi voilà xuloo bi xeexoo bi li ma koy sonalee affaire yooyu fitnaal bi ma ko doon def loolu yëpp c'est des choses qu'on a déjà eu à vivre donc euh, voilà des séquences yoo xamante j'aimais bien parce que c'était c'était naturel en fait mm-hmm. dama ko doon def naturellement. alors doo Bachir gars yi Bachir fi Eh. <laughs> wala ñu bàyyi ko noonu. non ñu bàyyi suspense ñu bàyyi suspense yi waaw. <laughs> alors ñu jàll ci série Infidèles pour l'instant man li ma seetaan bokk réussir ma ko Bachir bi moom amul grande différence. Mhm. Euh, ñu jëw ci Biddéew. Mhm. Biddéew tamit kaay sama genre yi bëgguma la woon sax gis. maanaam <laughs> noonu kii mais kii dafa ñu mel noonu. dëgg la alors rôle boobu la hmm. par contre c'était pas évident déjà man je suis contre ce genre de ce de choses nit bu nekkee ci ci négocier da nga ko ciy bàyyi tu vois c'est fini c'est fini mais bon comme je dis souvent c'est juste un rôle da nga proposé proposer si tu te sens capable de pouvoir le faire tu le fais. mais waaw euh, ni ñi nañ ma ci doon sonal waaye yaa bu ma rombee ci mbedd bi yaa bàyyil vidéo yaa bàyyil jabaru jàmbur yaa yab bu la jàppee du baax patati patata xam nga mais bon c'est c'est c'était un rôle et puis dans la plaisanterie quand il me disait ça donc ça faisait mais c'est vrai que am na ñu bëri ñuy dund lii ah on dañ ko joué nañ ko mais je sais que am na ñu koy dund. am nañu koy dund oui am nañu koy dund c'est pas évident. est-ce que am nga témoignage dund bon ci rôle nga joué yëpp man gis naa ci sama bopp. wala nga joué nii am nga gis ko ko dund. non pas encore. non pas encore non. yaayaa bi nag retour ci am yaa ngi wax ne dañ la doon dañ la doon. yan clash lañ nga gën a bóor nag. mooy bàyyil jabaru jàmbur. waaw bàyyil jabaru jàmbur. kon am na ñoo xam ne dañoo gëmoon ne wóol bi euh, noonu nga mel. <laughs> les gens pensaient que peut-être que ouais a été réellement comme ça mais bon c'est juste un rôle. Mm-hmm. voilà et on a essayé de le gérer comme on pouvait et te nit ñi bu ñu demee ba jéppi ma ci biir série bi c'est que réellement j'ai bien fait le rôle. parce que bu ma ko defoon ba pare ils avaient pas eu de retour négatif par rapport au personnage donc j'aurais pas assuré. mais bu ñu demee ba jéppi ma c'est que moi je pense que j'ai bien géré. d'accord alors yow bokk nga ci acteur yoo xam ne tey par exemple duñ ko xamee benn maison de production liggéey nga ak Yes Dakar Evan Prod ak yeneen maison de production mhm. Yes. Euh, Leuz Média. Mhm. ak ñoom euh, sa relation déjà ak acteurs yi. Mhm. nga xam ne collaboré nga ak ñoom. seen euh, relation la je m'entends super bien avec tous les acteurs, que ce soit à Event Prod, à Les Media, euh, à Yes Dakar. Euh, am na ñoo xamante ni sax jotoon naa liggéey ba pare ak ñoom comme euh, Mbayang qui est dans Infidèle. Mm-hmm. dans Secret de famille c'était ma copine. xam nga donc quand je suis venu dans Infidèle on s'est rencontrés encore là-bas donc les relations étaient super bien quoi donc moi je ouais j'ai pas de problème man su ma demee tournage damay ñëw def li may def jóg dem sama yoon sama wax bëriwul je suis très réservé. donc euh, voilà j'ai pas de problème j'ai des problèmes avec personne franchement. est-ce que euh, mës nga genre ñaari maison de production yi ngay tourner ak de production. en même temps. Euh, hmm, oui. Euh, oui Infidèles et Média. parce que voilà. alors concurrence yi maison de production yi day am. Mhm. day gis Mbargo di nekk concurrence bi école prod. Mhm. est-ce que yéen doo leen am problème boobu des fois heure est-ce que doo leen am genre de souci. ca peut arriver, mais c'est quand même très rare. Ça peut arriver que dans le même jour, tu aies deux tournages, le matin et le soir. Mais bon, en général, vu qu'on te prévient la veille, di nga mën a décaler d'une heure ou bien de deux tel ou tel tournage donc ça empiète rarement la, la production. Mhm. voilà. alors sànq laaj la séquence après neexu ci ban ci ban. série boo euh, que j'ai joué que j'ai pas kiffé est-ce que am na. wala nga joué ko nga je pouvais faire plus. Euh, franchement. peut-être séquence bi ñu may bi ñu may ci biir kër gi. bi ma Adelaide doon daax mhm. peut boobu waaye je peux dire que j'aurais peut mhm. naa gën a mën a yërëmtulu ba mu bàyyi ma ci kër gi. Mhm. <laughs> ba mu bañ maa génnee. moom ñëwagul gars yi seetaanaguñ ko. waaw te gars yi seetaanaguñ ko. <laughs> alors euh, tey su ma la doon wax milieu cinéma bi tey nga gis série yi bëri na. Euh, ku nekk mi ngi mi ngi xëcc booram di di di di bëgg a def. loo xam ne euh, Sénégalais ko seetaan. mën nga ko gisee l'exploration de séries non, il y a une belle évolution. Hein. Franchement, euh, les maisons de production proposent des, des, contenus de plus en plus qualitatifs. Et euh, lol, nice, là, quoi. Franchement, c'est bien. Parce que d'affaire tard, Taïdine et Newman exportent ce produit. Et moi, je reçois beaucoup d'appels de, de, de, de, gens de l'extérieur qui, nous disent que, qui me disent que Euh, li ñuy def nice na li ñuy def rafet na léegi franchement suñu production yi c'est c'est magnifique waaw et ça fait chaud au cœur ça fait plaisir daf ñuy neex parce que ñun ñun lu ñuy consommer parfois Nollywood bi wala novelas yi xam nga ñu ñu koy enjoy ça fait plaisir que tamit ñeneen ñi di di consommer ñun suñu suñu produits locaux yi en plus de sa maa ngi gis ne que très souvent dans beaucoup de séries maintenant ñu def sous-titres yi et ça facilite Euh, ça, fait, ça facilite la compréhension pour les étrangers ceux qui ne comprennent pas wolof parce que ñun suñu série souvent dañuy làkk wolof lu bëri donc étranger bu ñuy bëgg a seetaan dinañ seetaan parce que neex nañ leen mais la majeure partie duñu comprendre parce que on parle wolof dedans alors le fait que ñuy sous-titrer série yi léegi c'est c'est un vraiment c'est un plus quoi et ñoom ils adorent ça en fait ils adorent pouvoir lire et comprendre ce qu'on dit waaw mmh. mais dafa mel ni tamit acteurs yi instant bi sonal nañu maison de production yi di nga gis acteur bu bu xëy bàyyi. est-ce que yooyu euh, ah je pense que gars yi lépp ñu def rek ñoom ñoo xam ne ñu def ko. Mm-hmm. affaire yëpp daal waxtaan ba jubóo la tey jii nii booy engagé dans un projet je pense que tu as noir sur blanc li nga war a def ak li nga warul def donc boo demee ba ci biir après nga nga nga jéem a retiré pour x ou y raison loolu kenn xamul lu tax nga bëgg ko def. donc euh, voilà si tu peux assumer ton ton acte assume sinon euh, je pense que. parce que genre qu'ils essaient de prendre la grosse tête quoi. je, je peut-être non man dundu ma je pense pas que loolu dinaa ko parce que c'est euh, je pense que bu bu ñu xamee sa valeur jarul ngay ngay def yenn yi pour wane wane sa bopp en fait. Voilà. Si on sait que tu es bien, on sait que tu es bien. Tu n'as pas besoin de faire tel ou tel buzz pour qu'on puisse dire Ah oui, cette personne-là, non, non, non, c'est pas la peine. te mel ne Bachir ñoo xam ne peut-être cas yooyu fi gis lu bari. Hmm. ñu mel ne ñooñu moo leen doon jox conseil je dirais à Bachir euh, bu mu bu mu topp parce que tu finis toujours par le regretter. Comme on dit souvent, quand on emprunte le chemin de je m'en fous, on se retrouve au village de si je savais te instant yi bâché looloo ko daal mi ngi réccu lu mu def yëpp donc waaw euh, bu mu topp ay bëgg-bëggam. est-ce que am na benn jikko bu Bachir am Fabrice même temps am ko. Euh, jikko bu Bachir am Fabrice même temps am ko. <laughs> Euh, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça euh, euh, Bachir Bachir Bachir Bachir Bachir nag Bachir dafa saay-saay nag de Bachir dafa doy waar de bon je dirais pas que je suis manipulateur mais euh, j'aime pas parce que genre gis Bachir jigéen ñi dañ ko topp par mhm, exemple mhm. yooyu da ngeen koy dund yéen ak tey mhm, nii des fois ñu bind leen xam nga parce que yu tam dundoo ko jigéen ñi topp ma non loolu mënul ñàkk. loolu du ñàkk. <laughs> loolu du ñàkk nekk ci milieu bi ou pas loolu. est-ce que mës nga draguer ci réseaux sociaux yi par exemple. Euh, c'est des qui arrivent mais bon c'est pas méchant c'est rien mais je dirais que peut-être am te bu xaw a similaire ak man bi mu mën a am ce serait peut-être que euh, Bachir c'est un manipulateur. Mm-hmm. moi je dis pas que je suis manipulateur mais. Euh, j'aime pas avoir tort en fait tey jii nii mën naa am problème ak nit wala sama copine genre yooyu et euh, je fais tout pour retourner la situation en fait donc du ah. <laughs> ma. voilà dama ciy génn tout le temps ba mu set wecc. voilà këpp ko këpp ko voilà këpp ko coow bi. alors kontaan nañ ci la parce que rôle bi lu bëri bañ ko annoncé ne yaa ko war a joué amoon na un peu de commentaire yoo xam ne genre mënu

mais oui il y a des propositions qui arrivent et puis vous verrez en fait di ngeen gis incha allah bientôt euh, Bachir ou Yaya ou Sidi revenir encore sur le petit écran <laughs> ah. non problème salaire maa ngi sant yàlla bu baax waaw normal. <laughs> <laughs> en tout cas merci beaucoup à toute de Sénégo merci à ñëpp ñuy seetaan. Euh, c'était un honneur de venir ici franchement euh, maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax et vous donne rendez-vous à la prochaine. léegi nga wax ni partenaire la laaj tamit sa acteur sa référence peut-être di ko xool ci moom. sama acteur de référence. Ah euh, j'aime bien Denzel Washington. Ouais, c'est un acteur qui a, qui a beaucoup de charisme et euh, que j'admire beaucoup. Ouais, je, je l'aime bien, j'aime bien cet, cet acteur. Au Sénégal? Au, ah, au Sénégal, au Sénégal est-ce je sais pas bon j'ai pas encore de référence ici au Sénégal. mais euh, euh, euh, James dans Golden. Jules euh, Julo. Mm -hmm. voilà Julo oui sa façon de jouer c'est un grand acteur. je kiffe. merci beaucoup. merci à